alaikum mbokki Sénégal Je sama xarit yi nga ñu ngi Sénégal nek bitim réew maa leen di nuyu di leen sante. Euh tax kaddu man mu doon défendre intérêt sénégalais rawatina set nu def pour yokk comme depuis pour ñëpp mën ci jëriñoo loolu bokk na ci xeex yi nga xam ne koy def depuis très longtemps pour set nu ñuy yokk nit ñi ci pauvreté maanaam ñàkk-ñàkk combat bi ci top moy suñu environnement bi li nga défendre de l'environnement de l'environnement rawatina suñu corniche bi suñu littoral bi ci lañ ma ak man kenn xamuma ci yëfu caaxaan dama amul jotu caaxaan waaye wolof njaay nee na seytaani waxul dëgg waaye yàq na xol yàq na xel la wax ma ciy boole yàq na xol suñu benn doom bu ñu tuddee abindu moo fi tuumal ci loo xam ne yu doy waar la dëgg la am na ay jigéen yu bari yoo xam ne ah ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu ko nettali am ñu leen di topp di leen wax ay waxu caaxaan dugg na fii jënd na fii parce que dañu bëgg lii dañu bëgg a lee man nag yàlla may na ma juróomi bant ñoom ñëpp ay jigéen la kon nag man man Pierre bi kenn mësuma xamal yëfu caaxaan ki ma tuumal nag doom laa ko tegoon moo tax keroog bi ñu demee ci baayam li ko pàpp ji wax lu leer la duma ci dellu si ñu jóge foofu ma defe ne ah vraiment sama doom jii dëgg na comprendre na li ma koy wax am ci mbégteel bu qui dem wax ko yi koy wax yi ma ko wax te seede nit ñi mën nañ ko wax waxu ci je dana euh, tribunal dina ko leeral parce que saabu matut a foob euh, je boppam ma di waaye nag am na yoo xam ne bëgg naa ñu leeral ko mu leer ci boppi nit ñi man kenn duma tuumal ci loo xam ne defuma ko ma koy bàyyi dinañu dem tribunal boobu tribunal dina régle problème jooju parce que xam nga tey ci àddina ku la wax ne woo nga ko dix heures onze heures minuit rawatina trois heures du matin boo leen demee Sonatel sonateel mën na leen àtt naan ah

président Macky Sall ma ko ci gërëm bu baax président Senghor tàppal président Abdou Diouf tàppal président Wade tàppal na médaille lu tax may ñew ci lool Sénégal médaille ji moy bi gëna a ci li ñuy joxe bu lay yalla dimbalé sutural la chef d'état yi fi ku ci ñoo rawatina ki fi ne ñëw tàppal lëg bi nga xam ne moo ci gën a rëy mooy bi muy tàpp bi ñu ko tàppal moom ci boppam ah ça veut mënoo dugg ci yëfu caaxaan ci yëfu tàppale rawatina ci yëfu liy tubaab wax mœurs man dañ ma yar dañ ma yar ci jub ci liggéey ci am yërmande tamit te defe naa foofu mooy problème bi kookuy wax dama koy yërëm ba ni ko fi nga bëgg a tabax waroo fa tabax parce que fii yoon la rond point la waaye man mii defal naa ko ñu bari mën naa la dimbali nga am lu lu lu ëpp lii ma defoon ne comprendre na bi ma kontaan ci am ci mbégteel bu rëy ndekete woo comprendre depuis plus de trois ans gisuma ko muy continuer di def lu muy def jóg di may tuumal ci yëfu caaxaan waaw loolu nag ni ma ko waxe justice mom bobu dina ko teur waye lima ma bëgg sénégalais yi xam moy man mi li duma arrêter parce que loo xam ne koom-koom bee ko moo xaw ma euh, ñépp ko moom kenn waru ko jël def ko sa aleeru bopp yaa xam trent cinq millions nga koy jëndee 1 milliard nga koy jëndee waaye loo xam ne ñépp ko bokk ñépp ko war a bokk jëriñoo ko combat boobu nag maa ngi koy yëgal ñi nga xam ne xaw ma dañ ko yónni dañ ko yónni xaw ma li xew loolu moom yoon dina ko def waaye maa ngi yëgal ñi nga xam ne ñoo fi nekk di pasar pasar suñu suuf yi ne combat bi duma ko bàyyi ba bés bi fi yàlla di ma di di di ma jëlee loolu duma ko bàyyi mukk na leer ci seen bopp calomnie lii sa lii lii li tubaab wax calomnie maanaam tef yi nga xam ne dañ ko bëgg a teg ci nit ñi nañu xam kuñ koy teg ci li ñuy wax harcèlement sexuel maanaam góor yi nga xam ne xaw ma lu nekk seen bopp topp jigéen rek mooy seen métier loolu dama ko ñaawlu ci ñu koy xeex laa bokk parce que am naa ay doom yu jigéen waaye tamit jigéen yi nga xam ne dañuy jóg di tuumal nit ñi rek parce que defe nañ ne bu ñu tuumalee kii waaw ok ñëpp dinañu ñëw naan ah oui ñii nii nii nii man bokkuma ci ñëw ñu rek boo ma tuumalee da koy def ci wóor.

waaw ma ciy sant sama euh, sama gouvernement yi fi nekkoon di ciy sant gouvernement américain di ciy sant surtout sénégalais yi parce que doomu Sénégal bu ñu la joxee bourse nga dem jàng bitim réew rawatina ci école yi gën a rëy yi gën a cher boo war nga ñibbisi dellool Sénégal mu njukkal loolu laaj kon bi ma fi dellusee yàlla may mi balaa maa ñëw ma doon liggéey Amérique quelques mois avec la fa liggéey wàcc Mustang Ford Mustang maag maître suis rek ñoo fi amoon waaw man Mustang dem ñu may ay francs ak ay 1000 francs rawatina ma sama mag ju baax Cheikh Ngom ñu gagné projet BCAO xam nga nag li xew euh, du ñu xaw yooyu yaay kan di projet 4 milliards boobu boo amee 3 millions mën nga jënd kër point E waaw dinaa dem ñu may may ay 500 francs ak ay 1000 francs mais loolu man dugguma ci waxtaan jooju parce que loolu waxtaan ju sew la loolu taxuma jóg man lima ma tax a jóg encore une fois ma bëgg ñëpp mu dugg ci bopp ñëpp li nga xam ne askan bi moo ko man dinaa ci xeex ak samay xarit dinaa ci xeex muy tey muy ëllëg ñoom nag ñi koy def dañu am ay moyens yu doy waar mënu leen xalaat sax moyens yi ñu am waaye man doomu Casamance la am na yoo xam ne duma ko nangul kenn dëgg bu amee dañ koy wax mënoon naa toog jàpp sama njàmbur 73 ans yàlla sutural ma buma ma neexoon sax dem bitim réew ni ko ñeneen di defee waaye fii sama réew dama dellu si pour liggéeyal réew mi xam ne ah éducation biñ ma may muy éducation bu fii muy bu feneen macha allah li nga xam ne jàng naa ko parce que encore une fois bourse biñ ma may moo tax ma mën a am lii lolou duma ko fatte mukk lolou tax keroog nit di laaj ma way yow lu tax ngay xeex bi léegi dama man dama amel njukkal Sénégal lolou rek ma tax a jóg bi may xeex corniche bi ak yagg ak yagg saga nañ ma ci menacer nañ ma ci dem nañ ci lu ne manon na tok japp sama njàmbur tok sama kër gi waaye conviction xam conviction conviction mooy loo xam ne ko gëm Sénégal ji mën nañ ko transformer man sama problème transformation bi nag ci environnement bi lay commencer waaw environnement lay parce que boo amee boo bëggee am lu da ngay environnement nga defar ko ba mu baax loolu laa jàng kon nag xeex bi nga xam ne moo ma tax a jóg tuumalu caaxaan du tax ma arrêté ko tuumalu caaxaan du tax ma arrêté ko kii wax lu mu bëgg ñu bàyyi ko mu def ay kiosque ak xawma lan ci rond point ma ni ko loolu ma dutu am rawatina ma ni étudiant yi man mën naa leen may place boo xam ne mën ngeen ñëw ji ji feexlu bëggaluma ko sama bopp porte du millénaire bi ñuy wax sama alal laa jël tabax ko may ko askan bi kon nag vraiment maa ngi jéggalu encore une fois parce que li ma gënaloon mooy tey ñu wax waxum développement

et puis bu ñu waree wax yow di koy génnee loolu bu leen ko def mukk bañ a takk masque sax moo ko gën kon nag boobu nañ ko évacuer nañu dellusi ci li nga xam ne mooy liñ ñu tuumal jël naa sama avocat yoon dina wax ndax li mu wax dëgg la wala du dëgg bu dee dëgg la li ma leen woon sànq naa ko delloo président de la république parce que loolu kuñ ko tàppal kuñ ko tàppal waroo dugg ci caaxaan yu mel noonu kon nag euh, bii mooy première fois may dugg ci seen li ngeen di wax euh, euh, Facebook amoon naa page nag ñeneen ñoo ko doon animé waaye tey defe woon naa ne bi ma gisee seede yi nga xam ne ñoo xam ne ñenn ñi dama leen fàtte woon sax seede nañ ko ci man daw na yaram motax bima yewo tay mani ah pierre mbir mi def nga ko ci yoon waaw yoon dina len atté waye nak war nga wax ak askan bi pour rassurer len manam buñ ci am ñaari xel pierre gu pierre gu atté atepa doomu casamance rawatina doomu senegal non

parce que man bind naa téere boo xam ñu ko osé bindaat beneen téere Sénégal rek waaw ku bind Sénégal rek wax leen li ci wax yëpp samp leen bëgg euh, bëgg président ñu koy ci yëfu non attention encore une fois euh, maa ngi euh, bu leen ci am vraiment sama xarit yi ak ñi nga xamné ne xam nañ ne Pierre euh bokul ci yenn yi na seen xel dal man mi ma wax sama avocat na dem Sonatel na ut euh, euh, réquisition ñu seet numéro yi ma téléphoné yépp yépp depuis 3 ans bu dé ben yoon rek gis nañ fa né wona soxna si ci limu wax ak ni mu ko waxe tuduma Pierre Goudiaby Atepa tuduma Pierre bi Atepa du man ma ngi len di gërëm di len sante aduna yeb ci la ko def sama aduna yeb jup kenn mu la japp ci ki dafay nga ne bu bu ma yu may fi ne di di def yi may def waaw man dama amul jooju jot dama amul jooju jot kon nag vraiment euh, bëgg naa lii daal ñu ko fi euh, encore bëggoon naa wax ci ay wolof yu yu baax sax parce que mon tribunal waaye wolof njaay nee na roof yàqul jël kon nag wax naa li ma leen bëggoon wax merci